président ñëw na ci baayam sëriñam xaritam xam naa la mu ko waxoon ca poroxaan ba wut réew mi président Macky Sall ñëw ci moom ni ko poroxaan jëkkante la te jëkk naa ci loola am ba ki dem ci màggal gi ñëw na Touba yoon yu bari waaye màggalam gii mu ñëw ba bëkk démb nag dalal ngam xelam daggi nga ko wax nga ak taalibe yi soññi nga leen ci ni moom mii day liggéey sëriñ Touba nga ne ko kuy liggéey Serigne Touba nag bul gestu continuer moo tax ngoon ngonal akub tool yi mujj Mbàkke lii la dal nag toppe rek la ko may doomi Sëñ Touba yëpp am nañ sa sa mag yëpp yu bal nañ sa loo am rek toppee la ko may ak defaral Sëñ tubaa Sëñ Touba nag ku ko defaral defaru defaral nga ko ba tey Mbakke loolu waral ñëw na ànd ak premier ministre sab bi bokk ci kër gi sa doom mooy Mor Ngom Maxtaar Diop au conseil mi nga ne de Cheikh Mbakke Sakho di kenn ci réew mi ñu nii toog moom itam fekk nga ko fi waaye sëñ Xaadim Géey denc mi ngi nii toog di ko yàlla baaxal sëñ bi di ko jàppale président mi ngi itam day daana ko def waaye tey kon sëriñ bi sëñ Fallou rakkam ju baax jaa waaye sëñ maam Thierno nuy si na la léegi moom sëñ Cheikh Balla ndax ku ne xam na sëñ Cheikh Awa Balla digganteem ak Cheikh Mamadou Bachir sëñ maam Thierno loolu la jàpp loolu la dundal sëñ Muntaxa léppam kon moo taxit ñoom ñëpp ñëw nañu su ko defee nag njabootu Cheikh Sidi waaye sëñ Sidi moom Cheikh Abdoulaye Tarak ja moo ñëw teeru ko ak Cheikh Mamadou bashir ñaanal ko gunge ko. mu ni nag maa ngi dem ca sama baay sama sëriñ ki may yàggal lool te lépp lu ma masa dugg bu ma ca déggee kàddoom ànd naa ca xel mu dal mu ne am na am maa ngi ñaanal Cheikh Sidil Maxtaar ndax boole woon na ma ak sëñ Muntaxa waaye boole naa sama sëñ Muntaxa sëñ Muntaxa mooy sama lépp moo tax mu ñëw yëkkati njaalam war la ko jaal su ko defee nun ñëpp ñu déglu président. non bu ñu sant yàlla julli ci. sang bu tedd bi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa yi sant Serigne Touba di ñëw fii sa wet Mbakke Serigne Mountakha Bassirou di la andil njaalu réew mi yépp ginnaaw bu fi sa mag ju baax ci wàcce liggéey biik ma jógee léegi ci kër ga muy suñ Sidi Maxtaar bàkk yoon na yàlla yokk leeram ñu gis taxawaay bu rafet bi nga taxawoon ci wetam jàpp bi nga ko jàppoon ak mission bi nga xam ne yaa ngi ko doon doxal di ko doxal yoon bi di ko doxal lislaam bi yëpp kon bu xew-xew boobu ñëwee dal ci suñu kaw nangu ko ndax dogal la boo xam ne sunu borom moo ko wax na lillahi wa inna ilayhi rajiun waaye mu defee ko nu rafet itam ndax mission am matale na ko ba wuyu ji ki nga xam ne moo moo moom lépp moo waral lépp itam sëñ Mountakha Bachir tey ji yooy sëriñ Touba yaa yaay sëriñ Touba yaay sëriñ Bachiru Mbàkke loolu tey mooy yàlla dogal kon ñëw nañu indi njaalu réew mi njaalu Sénégal yépp teg ko sa loxo bokk yow ñaan yàlla yokk leeru sëriñ bi ñëw itam feddali la kóllëre gi nga xam ne dox na sama kër ak kër Sëñ Tuuba feddali la it kóllëre gi nga xam ne yow sa bopp Mbàkke yaa ma jàppal sa bopp ci loo xam ne du tey la tàmbali nga wone ko ci yërmande wone ko ci ay ñaan wane ko sax wane ko sax ci ay kàddu màggal gi rekk moo ci mujj kon mission bi sunu borom jox la tey sëriñ bi dañu ñaan yàlla mu jàppale la ko téel mission bi taalibe yëpp ànd si ak yow man it ma fas yéene jàppale la si sama kem kàttan si li nga xam ne sunu borom dënk na ma ko lépp loo ci yëkkati suma ma ko yëgee danaa si def sama wareef danañ la si jàppale te xam nañu ne ah, kuy liggéey nga tabaxkat nga ku am yéene nga ci askan wi am yéene ci taalibe yi am yéene ci diine ji suñu xel it dal na ndax xam nañu ne ah, fi ngay joxoñ fu yàlla santaane la fa ngay joxoñ yonant bi santaane fa ngay joxoon suñ Tuubaa santaane kon maa ngi wax ni pare nañu pour jàppale si mission bu bees bi ñëw nañu jox la ziyaara réew mi yëpp ak cant réew mi yëpp nga jottali it say rakk ak njaboot gi fi teew yëpp ba woon ci lim rek boo ma ko may sëñ Isaaxa Mbàkke sëñ Isaaxa sëñ Fàllu sëñ Fàllu Bachir Isaaxa Mbàkke ak suñu sëriñ suñu wëllëre suñu xarit sëriñ maam Cerno bu Daaru Marnaan di nuyu itam sëriñ Alaaji Mbàkke Basiru ak sa doom sëriñ Koso Mbàkke nuyu itam sëriñ Cheikh Ibra ak mboolem njabootu kër gi di nuyu itam sëriñ Makhtar Diouf wax nañu ko sa mos ah di la indil nuyoo tam sa njaboot gi nga xam ne ci man la bokk Mohamed Dionne premier ministre bokk ci kër gi Moustapha Cissé Lo moom ma njëkk a xamloo daaru minam eh, ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne ñoo bokk liggéey bi Ah, ku ci mel nu Babacar Touré aussi démb jokkoon ak moom ci guddi doon xool sa position kon sëriñ bi ah, xam nañu ne daal l'islam bi yàlla tegaat na ko ci loxo yoo xam ne yaakaar dana yokk ndax sëñ Sidi Maxtaar wax naa ko sànq yàlla dafa am lum ko may ci ay bi nga xam ne toog na ko fi muy fexe ba jullit yëpp nekk benn fexe ba tarixa yëpp nekk benn te loolu am solo la ci Sénégal ci stabilité Sénégal am nañu yaakaar ni nii ñu la xamee ak lu ñu xam si yow yaakaar boobu dana gën a dëgër xamal ne daal sa taalibe sa xarit sa doom moo lay wax ni fas yéene na jàppale la si mission bi nga xam ne yàlla la ko jox suñ Tuubaa la ko jox yal na yàgg na nga fi yàgg lool te ànd ak wér ñu yàgg toog di la jàppale da nga mottali mission bi mottali say mébét yëpp ñu ngi sàkku it ñaan si yow ngir Sénégal yàlla yokk fi jàmm yokk fi salaam ndax ci jàmm jooju ak salaam jooju la ñu mën a am li ñu bëgg ci réew mi kon say ñaan mën na si def dara kon ñu lay ñaan nga yokku ñu ñaan yokk ko réew mi loolu ma doon kàddu yi ma bëggoon yëkkati ci naa la jottali yow xalif général bi seen njaal ginnaaw bu fi si Sidi Moxtaar wàcce liggéey fekk nga ko njaareem ca fulku ba ki démb bi nga fi ñëwee sëñ Isaaxa liggéey hôpital bu mel nii da nga ni duma ko romb mukk dama fay dem visiter ko waaye dugal ca sama loxo waaye jàpp ko ca ndax jàppale ko mooy jàppale Serigne Touba ko tabaxi jàkkaa ki jumaa rek war waaye nga teg ci hôpital yi ngir nit ña faju loolu duma ko romb kon nun ñëpp ñu déglu Serigne Mountakha Mbacké xalif général kulu murit sëñ bi mu ne alhamdulilahi rabbil alamin ne tey de bisu tiis la sax waaye ginnaaw kat bis bi noo julit yépp noo ko bokk ne président Macky Sall bàyyi ko fa mu nekkoon ñëw fii ne président kat sëñ bi ne sa kàddu yi nga wax ne kàddu yi yóbbaale na lépp ne dégg nañ ko bu baax a baax yaakaar na ni bokk yi fi teewit dégg nañ ko ni ko dégg ne kon alhamdulilahi rabbil alamin ne kaddu yooyu ne da koo def nag soññi boppam ne gën a fedd léegi laxasaayam ne fas yéene lu mu wees woon rek ci yéene ju baax ci jéem lu baax ne xeeb na ko ci lii mu jëm nag ne loolu nag sëriñ bi ne mi ngi koy wax fii ci kanam président de la république ne ngay yow président nga seere lii mu la wax ak bokk yi nga ak bokk yi fi teew mu ngi seereel président ni di ko seereel yéen ñëpp jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf waaw ginnaaw bu dogal jóge sunu borom ñëw ci kilifa gi nga xam ne mooy sëñ Sidi Mokhtar Mbacke toogaloon sëñ Touba kon xalif général de Mouride ñu delloo lépp sunu borom ndax moom moo ne inna lillahi wa inna ilayhi rajiun képp ku mu sàkk rek da nga dellu si moom. waaye nag ñu ko jëlaat nekk na jëlaat boo xam ne yaakaar mën na si am ndax jëlaat bu rafet la ni ko Serigne Cheikh Thioro waxee léegi bu la yàlla maye ngay surtout Sëñ Touba toog ba def la ngay mag ci njaboot gi nekk xalif général may la ba nga am lu ëpp juróom-ñeent fukki at daanaka ak ñeent kon bu la woowee ci wetam loolu jar na sant yàlla te Serigne Sidi Mokhtar dama ni yàlla defal na ko ndam ci li nga xam ne bokk na ci ay màndarga yoo xam ne mën nañ koo am ci lii nga xam ne ayam la woon mooy di fexe ba jullit yëpp nekk benn di dox pour que diine ji nekk benn di dox pour que tarixa yi di wax di waxtaan seen biir di demalante di seq jàmm loolu yàlla may na ko ci ndam bu rëy rëy waxuma rek ta tabax yi nga xam ne tabax na ko ci Touba tabax ko ci Ndakaaru ak fépp ndax bu ñu xool rek Masalikul Jinaan la fa ak juma ju mag ji si Touba ak yeneen bërëb yoo xam ne liggéeyam ak i dëkk feeñ na ci diiru juróom-ñaari at yi nga xam ne sunu borom dënk na ko xilaafa yi ah, kon bu ñu ñàkkee kilifa gu mel noonu nag réew mi Ah, faaw dana jooy nag ndéem nangu nañu dogal bi waaye war nañu di fàttaliku jikko yi nga xam ne moom la ñu xamoon ci moom jikko yooyu laa doon sedd sànq ci kanamu njabootam ñëw di ko seedeel tam kii nga xam ne tey moom la fi yàlla teg ci bopp yoon bi bu Serigne Mountakha Bachir Mbacké muy koo xam ne ku gis jëmm ji da xam ne yàlla kese la yonent bi kese la suñ Tuubaa kese la ndax kilifa diine la te mandarga yi wane na ko jëmm ji wane na ko kon moom ñu ngi koy ñaanal yàlla bàyyi ko fu mu yàgg lool te ànd ak wér jàppale ko ci yen bu bees bi nga xam ne yen na ko ko muy nekk sëriñ Tuubaa nekk it sëriñ Basiru Mbàkke kon am nañu yaakaar ne ndana euh, loolu buñ koy wax Moussaba du mos a réer dana ko sàmm téye ko jàppale taalibe yi jàppale njaboot gi jàppale lislaam loolu laa ko doon feddali ginnaaw moo ko feddali sama kóllëre sama taalibe ak euh, won ko ne lépp loo xamante ne na ko ci ay mébét na xam ne fas yéene naa jàppale ko ci mission bu bees boobu maa ngi indi njaalu Sénégal yëpp nag di ko jëmale ci communauté mouride Euh, jaarale ko ci ay loxoom yu tedd yi waaye aussi di nangu yit njaalu àdduna bi yëpp ndax àdduna bi yëpp ak ñuy yónnee message te it ay délégation dinañ fi ñëw bokk leen tiis bi kon loolu moo doon gàttal kàddu yi ma bëggoon yëkkati